tey jii di talaata juróom-ñeenti fan ci weeru juillet dëppook ñaari fan ci weeru tamxarit élimaani jëriñu réewum Sénégal Ousmane Sonko gise na tey jii ak ku tedd ki ak Cheikh Mouhamadul Mountakha la xalif général bu sell bii di Touba àndoon naag nag honorable député Serigne Cheikh Thioro Mbacké Serigne bi dalal leen ci jotaay bu am solo macha allah ci waxtaan boo xam itam wax na ci diggante ñaari kilifa yooyu ginnaaw bi itam ci lekku tedd ki comme bi jox ko ab kaamil moom kon Ousmane Sonko gise na tey jii ak Cheikh Mouhamadul Mountakha àndoon ak honorable Djibril Sine Cheikh Thioro Mbacké doonoon nag jotaay bu am solo euh, euh, jotaay la boo xam ne nag kon suñu mbir ko daal dalal kon en huis clos waaye nag jotaay loon bu am solo boo xam ne daal euh, lamba woon na lool kon ay njëriñ kon jàpp leen ne Ousmane Sonko ñëwoon na Touba tey gisee ku tedd ak Cheikh Mouhamadoul Mountakha le khalife général des